nañu am ay ressources minières muy or bi muy zircon muy yëpp gis ngeen ne eh, dëkku nasaraan yi ñooy ñëw pillé ko dem mhm. sénégalais yi ñooy gën sonn fa or ba nekk sax wala fa richesse nekk ña fa dëkk boo demee mhm. coono ba ñu nekkee kenn mënu ko naatable alors que dañu war a nekk ñoom ci ay conditions yu bien mhm. loolu la man je suis pas trop un peu et j'encourage le nouveau régime à encadrer tout cela dans la transparence et pourquoi pas ça au Sénégalais d'avoir une vision beaucoup plus large parce que ñu ngi ci mm. euh, réseaux sociaux yi. ndax mënuñu ci am xel bu daal ndax bu ñu la déggee sa biir wax ngay wax ni que gëmugoo ne que pétrole bi effectivement ni ñu ko waxee am na tant que gisoo euh, ñu dal di koy euh, exploiter ca na mu waree ba Sénégalais bu ci ne gis boppam gis nañ annonce yi nga xamante ni def nañu ci te régime bu bees bi donte yàgguñ fi mais dañuy gis d'habitude à chaque fois yi nga xam ne ñu ngi koy amal. Mm. effectivement ni ñu ko waxee. ne amul pétrole am na fi ñëpp leer na nañ. maintenant man balaa may gëm mooy comme sa élection yi la ma waxoon. Mhm. ma leen man gëw ma ne dina àggum tant dugguma ci urne bi. ba voté <laughs> ba càpp sama loxo génn. <laughs> et noonu laa ko defee aussi. c' la même chose. Mhm. il est bien beau de dire que am nañu pétrole ñu ngi koy exploité. Mhm. mais il est encore meilleur. que le Sénégalais lambda dans un avenir très proche. sentir ne effectivement moom pétrole bi nga xam ne moo ko moom mu ngi ciy gis boppam. foofu laay a parfaitement confiance. au nouveau régime parce que aussi dafa bokkoon ci cheval de bataille ci combat bi. par rapport ak ñi nga xam ne ñu ngi koy gérer suñuy suñuy ressources mhm. naturelles. Euh, bien sûr am na solo gannaaw loolee aussi mhm. maa ngi koy wax sànq annonce wala sax point de presse bi nga xam ne ni ki démb daal dinañu koy def euh, mu bàyyeekoo ci euh, gouvernement bi maanaam mhm. wàññi li nga xamante ni moom mooy njëg yi lu ci mel ni suukar ak li nga xamante ni moom mooy diwlin waaye aussi ceeb bi ak yenn ci yeneen yu bari ci sax ciment bi. ñuy wàññi lu tolloog 2000 mais euh, waxuñu ñi nga xamante ni ñoom ñooy grande entreprise yi naka nga gisee euh, prix yi nga xam ne daal dinañu koy euh, wàññee. mais je crois que dañ koy saluer et dañuy kontaan. ku nekk nag sa interprétation mais lii wér ba wóor mooy. Mhm. tey jii état bi fi ne tey def nañu ay effort ci ñoom li ñu moom. Mhm. pour soulager un peu les Sénégalais maintenant <laughs> c' est très normal. Mhm. que état buy doog a ñëw même pas deux mois ñu def Euh, li nga xam ne mooy déduction yi. Mm-hmm. c'est vrai ñu bari peut-être yaakaaroon ne dina gën a mag. Mm-hmm. mais bu gënoon a ngand tey ñoom ñi ko yaakaar nañu mm-hmm. xool. état bi fan la koy jëlee ah nan la nan la nan la def ba am ko mhm. donc lii dañuy jàpp ne rek promesse la boo xam ne de campagne la waxoon nañ mhm. ko et tey li ñu ci wàññi aussi mu néew mu bari li am solo rek mooy l'intention mhm. l'intention vaut la chandelle parce que tey prix bi dogguma la prix bi ñuy wax ne dafa néew daal dinañ ci euh, dugal lu tolloog cinquante trois milliards quatre cent millions la ñu dugal ci li ni mel pour mën a wàññi prix yooyu nga jàpp euh, tey genre subvention lay doonaat. boo xam ne état da koy supporter ci la nga xam ne moo ko moom. bien tey jii rationalisation des dépenses. ak wàññi puukare bi fi amoon tey peut-être moo permettre ñu def mesures yi. di ñaan mu gën a yokku. Mhm. et dina yokku sax parce philosophie bi nga xam ne. gis naa ne lool moo nekk ci programme yi mm-hmm. surtout ñi jël réew mi gëm naa ne tey buñ ko appliquer tuuti rek mm-hmm. sénégalais yi patient tuuti ba na déglu yàqkat yi mm-hmm. parce que nag ku sa gémmiñ di nàcc doo wax doo wax dëgg et que tey euh, bu ñu concentré ci liggéey bi sénégalais yëpp jàpp ci parce que loolu laa gëm li ñu wàññi ko pour ma sàmba ni par ma demba dañ ko wàññi pour sénégalais yëpp et tey ñi nga xam ne jóg nañ aussi ne dañuy opposé wu dañuy jëm a yàq je crois que nañu jël seen mal en patience et li ma leen di conseiller mooy aujourd'hui ñu am une autre position, une opposition vraiment euh, rationnelle, une opposition force de propose ñëw jàpp ci liggéey bi. Mhm. opposé bu jotee lu baaxul ñu teg ko wax ko sur la table. Mhm. état bi aussi. considérer opposition bi jox ko gëddam et ensemble qu'on travaille ce pays là moi je dis encore une fois félicitations au nouveau régime. par mhm. rapport à ces ces mhm. parce que tey gis naa ne tey dañuy gën a focus ci beesu dërëm <laughs> wala ñaar dërëm. mais peut-être yow mi toog. yor ko man nga ko bañ a sentir. Mhm. mais kilifa gi nga xam ne tey jii mburu rek dina si jënd dix kilos. par jour kooku xam na ne wàññi bi am na te suukar si. wàññi nañ ko. diwlin bi tey litre bi cent franc imaginel tey. ki nga xam ne da doon def restaurant wala ki nga xam ne tey jii. macha allah yàlla dénk na ko njaboot gu mag. et cetera borom kër yu mag yi. vraiment mhm. euh, euh, c' li nga xamante ni moom moo di ceeb diwlin ak euh, li nga xamante ni moom moo di pain. Mhm. maa ngi la koy wax léegi ciment bi aussi àddu nañu ci waaye aussi li nga xamante ni moom mooy aliment de bétail. Mhm. ba ci sax location yi daal dinañuy annoncé ne que dinañu ci xool def seen kéemtulaay kattan pour xool ana naka la ñuy def. ba mu gën a xam nga li ma jaaxal gis naa sax ñuy wax di bind quinze francs la moo tax binduñu deux mille francs yi ñu wàññi si. ciment bi bien sûr waay ci ciment bi. parce que wàññi leen dix francs mm-hmm. quinze francs ok wàññi leen cent francs mais jiitalal wàññi leen deux mille francs c'est pour te dire que rek mm-hmm. la philosophie de s'opposer mm -hmm. la philosophie de ces yàqal ñi fi ne mhm. euh, cette philosophie là elle est là mhm. c'est des gens yoo xam ne ils sont imbus de leur personne et que seen bopp rek la ñu gis bien sûr parce que mille boobu nag am na solo am na solo parce que tey boo jógee di tabax war a jënd ay tonnes yu bëree bëri mhm. tey 2000 boobu à la limite am na lu bëri lu muy peser ci balance boobu mm -hmm. maintenant comme je l'ai dit vous l'avez dit par rapport à li nga xam ne mooy la location xam nga ne essayé nañ ko fi mais mujj gi gis nga. parce que parewul woon je dis encore une fois au nouveau régime. Mhm. pour l'affaire des mhm. ñu liggéey ko prendre le temps qu'il faut liggéey ko ba nga xam ne bu ñu ko génnee duñ ci ñëwaat. Mhm. et pour cela il faut ñu copier yenn modèles yi je donne l'exemple il y a yoo xam ne en Europe tey jii. tey boo defee sa immeuble ba pare di ko louer fa am agence assermentée boo xam ne tey fa ngay dem nga yóbbu ko fa yóbbu ko fa ci ok bailleur bi ak locataire bi sax duñu xamante. te état bu boobaa aussi dina mën a recouvrer li nga xam ne moom la ci am. malheureusement au Sénégal amul lool da gis koo mhm. xam ne dañuy luye. Mhm. du fay impôt du fay dara rente bi aussi dina bari entre ki ñu luye ak ak mhm. ki moom kër gi. loolu tey avec des agences assermentées. tey on peut mettre en place un dispositif avec un travail en amont de surface corrigée suivant les zones ba nga xam ne tey jii sax problème yu bëri yu atali tribunal du am. agence baa ngi nii ci zone bi. Mhm. foofu ngay dem tu déclares sa immeuble. liñ koy louer en respectant ces surfaces corrigées en respectant la réglementation. Mhm. tey jii boroom kër gi chaque fois dina jot xaalisam. sans pour autant mu fatigué mu déplacé wu. locataire bi du am problème ak bailleur am dina respecter li nga xam ne moom lañ ko teg parce que loolu moo nekk la norme dans la zone. Mhm. et aussi dina récupérer li nga xam ne mooy lim ci am muy ay impôts. et c'est ça qui permet aujourd'hui un pays. Euh, bien sûr yaa ngi koy wax léegi ci même lancé bi ñu gis ne à chaque fois même bu dul ci wàllum location euh, gis nañ ne que même dund gi bu ñu annoncé ne dañ koy dañu koy wàññi. Hmm. parfois da ngay dem ci supermarché yi ñu ne la carrément. man mënaguma wàññi parce que marchandise bi dama ko jënd bien avant ñuy wàññi ba ci sax boutique yi nga xam ne ñoo nekk ci koñ mhm. euh, ci noonee mu mel ni que euh, état bi dafa xam bu baax a baax euh, sénégalais li ñuy dund ci li ni mel ba tax na daal dinañuy annoncé bu baax a baax ne dina am benn suivi bu mat par rapport ak prix yi nga xam ne dañ koy wàññi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di les commerçants waaw mais suivi boobu moom laa wax l' état l' c'est-à-dire mhm. que foofu la problème bi am l' état c' est a des mesures mhm. ñi ko war a appliquer dañ ko war a appliquer patriotiquement mm. c'est ça man li ma gëm ba gëm et puis aussi mm. ah ñoom tamit ñu jàppale seen bopp mooy jàppale état mooy que tey prix yi lii la su ma demee di ko jënd augmentation ma bañ mm-hmm. quitte à ce que sax ma woo ñi nga xam ne ñoo gérer loolu pour ñu ñëw constater ces états de fait il faut que aujourd'hui nit ñi comprendre que mm-hmm. état man la yow la keneen la état du ñu ñoo ñooñu dañu nekk di jiite mhm. yor gouvernail bi mais l' état c' est force bu ñu am ñoo leen ko jox donc mhm. il faut que Sénégal aussi mooy li ma wax rek heureusement que président bu bees bi bale la yoroon te mu ngi mhm. bale il faut que ñu bale mentalité yi ba mu set non si on veut il faut que ñu bale mentalité yi ñu changer ni ñu doon doxale bu ñu bëggee soppeeku te loolu tànk amul rek c'est peine perdue. Mhm. dañuy ñëwaat rek ci benn cercle vicieux boo xam ne dañuy tourner di dem di ñëw. Mhm. encore une fois chacun doit être son propre commissaire de police. Mhm. chacun doit être son propre médecin. chacun doit être son propre élément de nettoiement. ku nekk boo jàppee sa bopp. réew mi nga nekk nii fa nga nekk da nga war a jouer sa partition pleinement. yaakaar naa ne lépp dina yomb ci ñi nga xam ne ñoo jiite. parce que ñi jiite mënuñu ah amuñu doole ñi doole mooy le peuple. et quand le peuple et applique lépp dafay dox. Euh, voilà mi ngi noonu mu nekk lu am solo ñu gis euh, diggante yow ak euh, njiital gëm sa bopp di Bougane Gueye Dany gis nañ ko en tout cas le turbine xëyee tey ne carrément wàññi bi nga xam ne wàññi nañ ko njëg yi amul woon njëriñ ndax li ñu ci wàññi ëppul solo amul solo lool ci ñi nga xamante ni moom moo di prix yi. bon tudd nga Bougane c'est un frère c'est on mm-hmm. a combattu difficilement. Mm-hmm. pendant des périodes. c'est un homme que je respecte beaucoup. Mm-hmm. donc bon jël na option boo xam ne moom peut-être noonu la gisee ma respecte option mais man en ce qui me concerne. Mm-hmm. Euh, je suis en phase avec ces ces ces ces réductions là baisse des prix. Mm-hmm. tey jii bu ne woon tey baisse nañ prix ceeb bi baisse nañ ci trois cent francs. ñun sénégalais ñun du tiit. du duñu xalaat na nii ban ban levier la ñu appuyer ba ba ba ba dindi li. nan lañ def ba wàññi c'est-à-dire que mhm. il faut ñuy waxante dëgg. il faut sérieux. bien sûr baisse. l'état moom mooy contraindre boppam pour baisser. Mhm. parce que ñëpp xam na ne euh, euh, ci wàllu consommation. doo ñëw rek baisser mhm. déjà dañuy di. importer. Mhm. di jël devise di jënd di indi. muy lu metti. Mhm. waxatuma la y' a les acteurs qui sont là avec mhm. leurs syndicats et tout. donc tout ça se passe dans avec des négociations. ba nga xam ne kenn du ci lor boppam état mooy. nag boppam ci li mu moom. pour soulager les Sénégalais. et loolu pour ñu pour ñu dëgg ñu xam ne ñu ngi soulager Sénégalais il faut que le Sénégal. di liggéeyal boppam. di bay li muy lekk di liggéeyal boppam ya nga xam ne yëpp ñu ngi koy wuti bitim réew te ñu man ko fi def. teg les conditions. atmosphère bu baax pour ñu defal ko suñu bopp bu boobaa. wàññi sa du am. parce que ñooy produit li ñu soxla bu boobaa prix dina wàññeeku parce que tax yi nga am mhm. yooyu yëpp du amati mhm. et loolu la loolu laa gëm il faut qu'on soit raisonnable et qu'on soit responsable mhm. félicitons cet acte la parce que mu néew mu bari am na ñoo xam ne mu ngi impacter ñoom éviter tout le temps le moi privilégier le nous man loolu mhm. laa gëm. ñu gis à chaque fois critique yi di jóge bu baax a baax ci côté euh, ñeel rek li nga xamante ni moom mooy sortie bi nga xam ne defoon nañu ko fi. Mhm. Euh, foofee ca esplanade grand théâtre